ci ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari test yi ñu def fanweer ñoo ci positif maanaam ñaar fukk ak juróom-benn yi ay contact lañu ñeenti cas yi ci ay cas communautaire yu ñu gisee fële ci Touba fukk ak benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey yeneen malade yi des ci hôpitaux yi ngi am tan te benn cas grave amul ci suñu structure de santé yi ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal wëññi na ñeenti téeméer ak ñeenti fukk ak ñaari cas ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett wër nañu juróom benn yàlla nangu na seeni bakkan kenn ki ñu évacué waat mu des téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci suñu structure hospitalière démb mardi ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu nekk Sénégal wàññi na juróom-benneel yi deseem ci mbas mi ministère bi kàlloo